nag li ko wër ñi ko doon xaar jàmm jàmm ba ca Thiaw. salaamaaleykum. Badja. oui. oui Badja. Badja. Badja yow naa la. sonal nga mag bàjjan puy bàjjan puy. bëggu ma xëyee du ma sa kanam gi la jàkkaarloo rek dama lay mujj sax di la gént. waaye di li fat fatt nga ma bu mu naan ma sa bàjjen sa njëkke laa maag sa jëkkër a bokk benn ndey man ko damaa judd fekk samay maga samay rakk wax bàjjen bu ñu juddoo boo juddoo fekk sa maga say rakk di wax bàjjen man du ma sa bàjjen sa fii nag moom fii ba fii mënutuma koo si supporter moom waaw sa lex yi rey na trop kon boog njëkk jigéen jox ma dama dem jàkkaarloo man bàjjen puy bàjjen puy puy ba nga dem sama kër gi ba nga fi ñëwee ba tey sama kër gi nga xam ne dama daan tegale saaku ceeb bi nii tegale bi dangu dëwli nii tamaate ji nii laa ko daan tegale kon bi ku daan togg ci nga naan damay ñëw kër mère Dial mu ma togg ba nga ñëwee ba tey na guleet ne gëng sama kanam dërëm yoruma ko téeméer la nag ci ceeb jënd ci dëwlin ndugg ci bu weccit moom bu moom mosoo ko andi bu desee weccit nga xam naa doom ni may maa jën lii. da nga ko xeeb da nga xeeb ñaar téeméer ñaar téeméer ko. gaal ma ko fay waay. maa ngi def ngeen ma yàgg sa jabar su ma góor a xëy jaal puy jaal puy jaal ah, lii maa nuyoo la. am nuyoo rek la ndax. nit ki kay boo ko xëyee nuyu ko faaw nga jaar ci wu santam. xanaa amoo leneen loo def. dem ànd ak dem def ni say morom dem uti liggéey liggéey indi ci biir kër gi. ay dama bëgg nga xam ne kii xale da nga ko war a muñoon xale des koy nax. Eh, xool du ma sa morom dégg nga baax li ma la ñàkk nga jom trop yow toog ba heure bii mos ma ligganti dépasse war a togg nga ñëw naan man ndax xale am na wax ak moom ndax yow gonto yow dóoroo fay yoo attoo ko tex yow daal ne mu ñu la jox di la di la kon euh, xont di xont sa jabar ba pare nga ñëw nag di ma attaqué. man akkuma la dama dégg ngeen di wax rek ma ñëw di la di waxtaan ak yow ci njëkk ci diggante mag rek. man may njëkkeem gën ci moom di njëkk lu baax. Ah, ah. yow nga ñëw di ma attaqué. man maa ko war a yuuxu yuuxootuma ko yow waroo koo yuuxu. man mii sama man ngay waxal lool yow da ngaa fàtte da ngaa fàtte. waaye daal waroo eh, gis nga wàjjo. man nga yuuxu. xool li man nga yuuxu da nga koo da man nga yuuxu man nga yuuxu man nga yuuxu yow war a def. man nga yuuxu <laughs> ma fi yaay dégg naa lépp maa ngi si biir dégg naa lépp yaay kii man dama koo bañ ba bëgguma ko xool baraw ma dama doon xaar mu génn ma parce que bu maa si moom man di ko bañ ba ba ba dam laa idda waxuma dara man li ma a métti ci moom mooy forme siwo bi mu yor xam nga siwo <laughs> siwo weñ yooyu nga xam dafa na mu mel ni forme mbaam xuuxam boobu mu yor ah, mbaam xuux mbaam xuux forme mbaam xuux la yor forme siwo la yor bind siwo fan siwo siwo rafet na siwo rafet na yaay kii léem dara laa si mun modde salte boo gisee mu xëyee suba ba dugg si rob ba benn robam boobu rek man moom laay bañ a gis man munuma ci moom dara waaye tey nag danga liggéey dara mooy bale mooy raxas eh texet la wax lii texet laa defut eh bàyyi e nga def nga ñëw dina raxas dina bale boole ko toog maa la wax lii bu ma génne ko maa la wax lii yaay ba pare nit dun sax mu ñuy fóotal suñu yére ah, wax dëgg yaay ay waay fóotkat ba dafa war a nag fóot nag yaay fóotal sunu yére na doole ju ko mën ma ko bañee sax yow bañee wo ko noonu dama koo bañ ba man man bu ma xëyee bugguma sax yam si moom man day wax dëgg yàlla bëgg mën day jeg mën day bëgg moom waxuma la dara jeg bu salte moo gën a bon te kii moom la mel ñoo ko doon xeexal ngay xabar xabari nii ko doon xeexal gas doon gas yow ba tax nga mel ni waaw ah laa xaw la wala li nga doon gas waaw yow gas sa kanam gi sa yëpp mel ni yow moom ma gas mbaaru xar ah. mi man awu mii waaw papa daa ñëw daa ñëw marché dem na woon boo demee ma ngay liif liif yi ka lafar lafar yi man xale bi ni may def awa nga ni ñëwagul si gër xam nga lii man bu ñu waxee ñu naan njëkk yi dañoo bon njëkk yi bon ñu booy takk jabar da nga leen di indil jabar joo xam ne waaw bu présentable waaye eh, ko modde kii boo ko man dama rarus sax ni kii sama sama ta sama moom man man man man moom man moom sama mag bi maam bi ma ko yónnee ba mu yegsee man eh. keroog ba ma ko ne mu rëcc ci guddi ga dama dama ndaw. dama ko ni mu réer yaay moom jabar moom boo koy xool moom boo koy takkal da nga nii kanam gi rëy na lex yi rëy na. waroo ko fee nekk te xat na xa yéen a nuroo sax nag bala naa dee rek mu naan fii ak fii du yéen a nuroo. te ku yomb sax boo koy takkal jabar da nga koy xool. Eh. yow da ngaa yabaate na amatul eh, yaa ma ko wax man mii. yàgg Tafa Thiam eh, yéen ne ma yaa ma ko ma ko sa bopp de. dooree ma yaa ne ma dugal ci kër yi neen suñu nijaay dafa yor yaa ma ko wax. a ko. man mii nga yaa ko wax man may la fenkat nga man xam naa ne yaa ko wax xanaa yow nga rafetal ko sax ni dafa ngemboo glace waaye wër naan dafa yomb. dafa ñàkk yow eh xoolal yaay kii bëgguma am ak moom histoire wax ko mu bàyyi ma. man dooñu dama leen door de. moom ay waxam dafa kii nga xam ne moo seen doom lu mu dégg mar day taali man moom li ma gën a métti ci moom li ma xam ne damaa métti métti ma ci moom moom mooy yéex añ yéex togg añ ak añ bu ñuy añ bu man benn laay dakk mais li may dakk benn fukk la koy dakk kii dafa tiit li ma gën a métti nag bu nay faax nag ba toog war a nag ak fàmb yu rëy nii lay def di dugal di fàmb yi naan nii fàmb yu rëy kan la tolol man sax lii dong nga an tolloon lii man lii day dara ñu ne ma sax da ngaa war a lekk pour sa biir gën a génn lii Andi jënd. daanaka jëm xool ko da koo ragal. kat li am ay bët di ko xool. bu baax. yow kay wér na ko toog naa di jëm kër ragal kay. bu baax bu baax. daanaka jëm. gën a lu ko ragal jëm. jën yu ragal ko bu di ko ragal.